sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti la leen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a bëgg mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak site Kewel Info du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daaytu Moustarchidine wal Moustarchidaat du nuyu kilifa diine yëpp di ñaan réew mi yàlla na fi def jàmm kon ni ma koy defee à chaque fois nee naa leen chaque fois dañuy toog li nga xam te moom mooy actualité. di waxaat nag gars yi ah, nañu bës cloche de notification bi abonné si Kewel Info nga xamante ni dara du leen raw di waxaat nag suñu mbokk promoteurs yi ou bien suma frères yi ñoom ñëpp ñu ñëw bu ñu ñëwee tamit wax ak ñun rek ñu jël seeni vingt combat Euh, kiwal leen ko defal leen ko ay plateau ainsi de suite ainsi de suite di ci bëggawaat nag bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Kandji production le PDG de ETDR ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax confiance bi mu am ci Kewel Info ba ñu signé ak ñoom contrat pour le 8 juillet di ci nuyu nag bu baax a baax muy Sam Mbaye boroom borom Sam production taxawal nag combat boo xamante ni muy Papa booy jinnee ak Nandi Fall loolu war a am ba tey le 8 juillet euh, gannaaw combat boobu nag am na ay combat yu moom combat boo xamante ni combat spécial la combat boo xamante ni combat espoir la combat boo xamante ni ñaari mbër yëpp seen gox fi dëkk da leen a yaakaar ku ci mel ne ki nga xamante ni moom mooy Jackson Junior bu Kër Mbaye Fall Jackson Junior nag kon ni ko gars yi di wax rek bu nekkee ci trasu turandoo yi turandoowam di ko nuyu au passage moom Jackson di ko nuyu bu baax a baax ndax kon ni nit moom boo ko tuddee sa bopp rek am na ay qualité yoo gis ci moom mais nag di ko ñaanal yàlla li Jackson am moom mu am lu ko raw loolu George Bush nag nekk fi nga xamante ni nekk bool bool kon ni ko gars di waxee mu nekk koo xamante ni macha allah eh, mi ngi def ay paawam marqué li nga xamante moom mooy empruntam moo tax nag combat yi nekk combat boo xamante ni amateur yi ñëpp ñoom ñoo ko bëgg moo tax tax ñu indi leen fii ci plateau bi ñaari xale yi di nuyu nag ñi nga xamante ñoom ñooy seen i accompagnant sans plus tarder dama jox ki nga moom mooy George Bush moom nuyoo George Bush maa ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah. maa ngi nuyu ñëpp. Sigil. waaw di la mm-hmm. nuyu. Mm-hmm. teel micro sama adversaire. Mm-hmm. di nuyu ñëpp di nuyu waa Mbourna. di nuyu waa Ngunjaan. waaw di sant sama pataro Abdou Kanji bu baax a baax a baax di nuyu Kanji Kanji yëpp. di sant waa Medina. waaw di sant waa Mbourna bu baax a baax a baax. ban écurie nga bàyyee ko. man écurie Badajon laa ne. Badajon waaw si booy aussi fi ñu ah? ah. Jackson l'enfant chéri de Kër Mbaye maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar ba ma yàlla. waaw dinaa ñu sant yàlla di si ñu di sant suñu ñaari waajur. Hmm. waaw sant sama sëriñ si ñu waayam di ko ñaan yàlla jàmm di ko fanal yor yàlla bàyyi suñu kanam waaw sant ñëpp sant waa kër Mbacar ñu ngi jógee sant waa Waalo. waa Ndiaye waa Bawol maa ngi sant bu baax a baax ñu Bawol Bawol laa wala wala laa. yow ñaar mun yow munoo nekk Bawol Bawol nekk Waalo Waalo. sama papa mi ngi dëgg Bawol sama yaay mi ngi dëgg Waalo hmm. Bawol Bawol laa. bal bool yëkkati mic bi aha damaa yoro ci wàllu wàll ok kii gënumaa nekk bawol bawol eh, démb nag bërki démb laa dëkkam kon duub la séeréer la man doomi séeréer hmm. la billaay wala yow a ngay nguus waay billaahi kii gënumaa nekk séeréer hmm. damay la lépp waaw damaa yoroo ci walo waale yi dégg nga li ma la damaa yoroo ci walo waale yi mhm. waaw mais man sama su ma ko woon tey bawal la nekk mm. ba fi dee mais nekkoo ko rek laa lay këram <laughs> kii maam <laughs> yàlla baax na daal mhm. <laughs> kii xam ci xam ko ci Jackson ah, dañuy timbit nii mais dañoo mën a ruubee xoola xoola Jackson bi commencé di ko ruube mais George Bush Jackson salaamaaleykum maaleykum salaam mu ñeme la di ruubee moom nan la la yabe. ñeme na musibaam nag. ñeme na musibaam da ngay sigil sigil. ñeme na musibaam. ah ñeme na musibaam. Ah, waaw ok dëgg la noonu la fay demee mhm, kay. noonu la demee. nga def ñaata combat. man maa ngi neuf combat. Ah. ñaata victoire. sept victoire deux défaites. ñan ñoo la daal. Boy Jaxaw Papa Laay. ci Boy Jaxaw men. ñaari défaite yooyu la am man lay waxal bu ko ruubee. Ah. yow boo paree nga compter say défaite ñaari nga am. acca ñëwal. man. Hmm. daan naa fils de courage laa daan. Auguste. Alma. Dame Juguer. Ah. Badou Fall. teel kan bébé Elton ah. bébé Elton men. non beneen bébé Elton. ok sa waay sa. Ah. waaw. yow nga ne yow ñaata ngeen ngeen defee daa am bu des. <coughs> bari moo des. <coughs> Hmm? <coughs> yàlla xam na ne yàlla xam na ne. yow ku la xamalee loolu yooyu nag. waaw mais ñun dafa ñu nag waaye ñun waaw lu mu gàtt gàtt làmb léegi xam nga si internet boo làmb taxawee da ngay dugg. Hmm. kii mosuma seetaan combat am. kan moom kon xamoo ko. ah ñaar combat nga def. sept combat. ñaar victoire. cinq victoire deux défaites. yéen ñaar yéen tollee palmarès ah. non non. yaa ñu la daan. man Boy Malika moom mu jël moom a daan. Boy Malika même. waaw. moom mu daan. kii daal combat am yi ma gis. ak woon ma yëpp combat yooyu. ak la ak ak te yëkkati micro bébé Jackson. Boy Malika moom a daan ak. tuuti mbir yi lay fàtte quoi. mbir nag bu leen di daane ngeen di nga xam seen tur. man loolu ma jaaxal tubaabu joor tubaabu joor tubaabu joor. waaw lan moo dugal ci yow gis nga George Bush ak ak waa Bawol instant yi ni ñu xewee. suñu écurie Bada Dione. waaw mais waa Bawol la xew moom xew <laughs> waa Bawol ñoo xew mais moom mi xewul. kii xew George Bush. <laughs> yaa ngi xewal bu mu xewee. ah yow George Bush mi nga xam te def na fi lu ne. Ah, lan la fi def balaa ma dee ñu naan moom day door mbëri. day dóor mbëri de dafa mën a dóor dóor mu daanu. Cheikh Niang moo mu daanu. bu Thiès Cheikh Niang Paa Cheikh moo ko jàppee dama ko. bu tamit nag boo ñaax. Cheikh noonu. mais defe naa loolu du ci boole boobu. mais Cheikh Niang dalaa daan. est-ce que si bëri nag Cheikh Niang tamit na. jàpp sa waay sa Pane Madiaye xoolal yow yu ma bul teg xel. non daw ci taan bi xam nga ko yéen làmb ju am bu amoon ba. mais moom est-ce que bëri nag Cheikh Niang làmb leen xam ngeen ni làmb ñaŋ moo a daan waaye. Ah. waaw ko mais waaw na. Mm. kon mais bu ma la daan waaye bu ma daan danga may wuyu. yow ëpp nga trois défaites yow. waaw merci combat yi ma gis yëpp dañu laa waaw merci moom kon gisoo benn victoire. combat yi ma gis yëpp. merci booy woon ma dañ koo daal. kii ah. seen seen seen dëgg am na ku fa nekk di ràññee abu ñu koy abada xam na ko bu baax. Hmm. saa moom neen dëkkul bawol moom koo dëkkuloo bawol. séeréer laa man séeréeru mbuus naa laa danga may déglu boo xamul danga abada maa koy nuyu bu baax bokk ba ñu saal bi ñuy entraîné ñoo bokk ba ñu coach bi ñuy entraîné maa waaw kay dama ko jàpp wal ko ci ay laa ko jàpp nga naan ay daa ay nii ak nii xam lan laa bëgg yoo xam bu baax yoo xam demee sa waay wuy ma yemal da nga réglé <laughs> yemal da nga réglé yow nga war a réglé ma de borom daar boîte bi soufflé yow non li nga tax leneen da ngay dóoree man sa dóor yooyu yow nga nga nga ñëw ma ci ngay. man du ma man non man walaay taa dañ lay for. barki borom daaro. Ah, da may déglu eh xool ma fi nga wax ak man yow maa la mun alee la tur yow. alee la tur maa la ko mun. a ko mën naa ko la tur. foo ko teg billaay wa taala. mës ngaa bëri adversaire mel nii kii a bëre. maa ko doole maa ko lu lamb laaj man maa ko dee bëre kii du xool ma ko ci bëre xam nga si lamb ji mu taxal ñëpp lan la ñuy lamb laame. ay daa a xeex de waaw daa mën a xeex moom la man xeex laa gën a ci bëre man nee laa la man séeréer séeréer laa man séeréer refum njom àndum andim ngi ref leena mi séeréer refum njom mi njom yim mi rimo mi rimo bool que wane na am man du ma bool bool man séeréer pire laa séeréer ci ndey séeréer ci mbaam séeréer ci lépp waaye muy jàmm ah mooy séeréer laa non mais Zozo Bouss nag. jackson ah, mi nee na la de. ah Zozo waaye ki da laa ñeme waay. kii arfuraanu ma day tëkkal. non da laa ñeme kay. waaye su ma doon teg xel man dinaa am Ousama. yow miy naan xee yow miy dégg may déglu yow miy naan yow dégg may déglu yow miy naan xee yow tëdd xee say entraînement yëpp a ngi sama téléphone fii boo eh. bëggee ma tegal la ko fii. Ah, da ngay déglu barki borom daaro interview bi ñu jëloon rek. interview bi ñu jëloon rek yow bu naa la seetaan may déglu déglu waaw boo ma waaw boo ma dégloo di ma la yow da ngay déglu moo xam la. yow ma gis a. sa waay damaa xam ne yow ni ngay bëre parce que sa waay man xoolal ay dëgër yi yeeg ay ñaka dëgër yëpp loolu maanaam bu wax ju yàqu la. maa yow ñoo am combat man la 8 juillet da nga may déglu man ak yow. yow bi ngay bëre gara combat est-ce que fekk na ma bëre yow. Jackson Jackson bi muy bëreeg allemand barki alxuraan bi muy bëreeg allemand ñoo bokk Kër Mbaye Fall. ok kii bi muy bëreeg allemand boobu Issaoui boobu laa Issaoui bëree naa boobu bëreeguma. bi muy bëreeg allemand man bi may bëreeg allemand. boobu mooy sama première combat. danaa kii fuuf. léegi man naa la mën a jur loolu yëpp dara awul boo xoolee kii kanam may déglu naa ne doom xaw mu def nii waaw ma naa xool nga sa kanam gi xool nga sa kanam gi yow xool nga sa kanam gi yow loolu naan yow la war a laaj yow lan nga naan xoolal eh, bi ni ma yow la ñu war a laaj lan nga naan. dama la ne da nga may déglu ma la daa da nga may déglu bëgg mel ko nga sol sa ngandi bolog bii ni yaakaar boo ñëwee mën ba ngandi sama kanam mais moom la a xeex te du daa am li ma ko wax léegi mhm. dama ko ne. kii entraînement fu muy contacter. Mm. lépp a ngi sama. kon da nga kon. yaa ngi koy topp kii. toppuma ko sax mais da eh, may déglu déglu ma. déglu ma yow. parce que alxuraan sama booy sama booy chaque jour say territoire la ñuy freiné. looy wax ni. wala déggoo ma Jackson dama la ne. barki borom daaro laa la giñal de yow bu war bi soufflé dinaa la duma te dinaa la daan man duma sa morom ci dara ci làmb yaa ma daa ko bëre bilaa yow ñu may bëre yow kan nga fi bëreel yow kan ak kan nga bëreel yow booy malika doo nga fi bëre ku ñun ñi xam waaw sa combat yëpp yow fu ñu laal nga tëdd yaa gën a nooy xaal oh, oh, oh, naan ay na nga samp jàng comme ni ngay sampee jàng wala ni ngay doxee ci kaw eh, gaay na nga sama kaw sa paa Paul bi nag da lay nax barki Seydina Mohamed danaa Jackson daa fa mën a bëre maa ngi koy wax keroog dama ko bëgg rectifier yow sax gars yi ngi lay rectifier jaruma la rectifier ma la war a ñëw jàpp la daal dem seeti leneen ndax ñu ngi lay dóor ngay tëdd Jojo daa mën a xet sa làmb yëpp dañ laa dóor nga wàcc da laa dóor la ngay nëbb sa defe sa waay man dañ maa dóor ma daanu yow yow fu ñu nga tëdd waaw merci. ah man ay ndaanaan ma daan. yow kan ak kan moo la daan man ay ndaanaan ma daan. yow kan ak kan moo la daan yow avance booy jaxaw yow ku la ko joxoon fay la ay million doo ko jël. avance avance papa ku la ko joxoon ay million jox la ko yow te doo ko jël. na si kan la yàqoo laaj ko moom si li ma wóor ba wóor mooy yow dinaa la duma te dinaa la daan sa powerpool bi nag da lay nax powerpool ban lu wax ni ci jackson noppi nga de paa bi borom jooni jooni bi da lay nax. ah borom jooni jooni dafa may nax da lay ah, loolu wax la mais li la war a wax ba xam di ma mooy maaraam ah, ah. yow fa ngay rootee la yow kan man la mën a wax mooy ci gàttal. Oh, eh, eh. li ma la a wax. booy sa waay George am na foo ko laal eh, eh, ay fii ak lépp am na foo ko eh, laal papal bi rek nga wàññeeku wàññeeku ah papal bi la kii ka koy sori gaa yi xaw ma siidi damu dëgg canaba hmm. kooku noonu hmm. fa muy rootee hmm. ñun fa la dem fa la ñuy nelaw ba yeewu daf li ñuy def ñu bisi en tout cas daal ceer gi mu ne kenn bu dee xas-xas loolu nga yaakaar. wax ji ah. loolu nga yaakaar. wax ji loolu nga yaakaar ci làmb ja. wax ji bu ñu ñëwee ci cadre bëre George Bush. wax ji avantage bi kii lan la ci am ci combat bi. avantage bi ah. barki xam nga lan la ci am. Mhm. ñëw jàpp déglu. ok kii bu ar dama ne kii barki borom daaru man du ma wax li ma deful man séeréer laa. Mhm. kii arbitre buy waaye wàccee loxo maay ci kaw. kon yow da nga koy diriger yaa koy diriger. yaa koy diriger kii. Ah. ay ay zone la ñu yàlla may fekkee boobu la julee man duma wax li ma deful loolu sama problème. te yow barki borom daar yow dinaa la duma. yow dama yow dama newoon damay bëre mais dama lay duma. i mer na. <laughs> kii bu ma duma dañ koy for comme niñ ko mujjee for. sa waay sa waay ay dañ may for. maa ngi xale xam nga lan mooy problème bi xam nga lan mooy problème bi. wuyu ma wuyu ma problème bi xam nga lan la yaw bu dépendre ci ne nga naan xam nga lan ci lan ngay wax waxal ci sama combat ak yow. man yow danga may déglu yow ne yow danga may dóor ñu forme ak ay yooyu noonu ay wax si kandang yooyu noonu xaw ma lan yow barki borom daaro yow noo def daanu. nga ni bés bi sama bés la su bëree ok bés bi sama bés la. su bëree kii nu mu def daanu. bu bëree ma dóor ko. bu bëree ma jàngal ko nu ñuy. ñaari minute nga ko may kii ma ma kii ma ma may minute kii ma arbitre bu soufflé man maa ci kawam. billahi mais Bébé Jackson kii man man man man non kii dafa laa ñeme xam nga waxata waxata la toog fii naa ay suma arbitre sifflé dina def nii kon dina la fore comme nan la laan fore. samay combat yi. a seetaan da may déglu seetaan ay samay combat seetaan samay signature sa combat la laa seetaan yaa may man du ma wax li ma déglu. ah baax na léegi war bi ne prime. yow war bi li nga def li nga wax def ko. da nga may bi ne la yow li nga wax def ko. sa naa la xamal benn affaire de yow sa fiir yooyu ngay fiir booy fiir da ngay ñëw bu baax mais bàyyi di def <laughs> dëggal kii kii daa may déglu kii am nañu baaxal bu yàgg. barki borom daaru bu addu suuf la dinaa la dumata dinaa la daan maa mun maa bu doole barki borom daaru maa la lépp lépp lu làmb laa dama lay génneel làmb ji saa da nga war a toog sa patron man ñooy li ma bëgg ñu defal ma ko barki borom daaru da ngay kan moo may génn loolu ma génn loolu ah. ah, am lu ñu ma kan ma ci mbërum Mor <laughs> mënum booy mbaay yi. ceer nee naa ko mor nee naa ko mor kañ dama dama mor day daan sam day daan day daan mburu kañ yi. kañ yi déposé ko. su ma ko gàllankoor problème bi ah. xam nga lan la. Ah. problème bi mooy yow doo ma daan. yow doo ma daan. barki borom daaro yow doo ma daan. foo ko teg foo teg foo teg. billaahi wallaahi wa kii du daan. foo ko teg. non dama ko xam rek. Ah. waaw combat bi moom laa gën a respecté samay combat. ndax lan booy nga xam loolu def. looloo looloo mu gën a neex nag booy daa looloo mu gën a neex nag. res eh, moo gën a niir eh, kii eh, mbër mu gën a niir la. kon ñi nga doon bëree ak kii ah, am na waroon xam nga lan moo waroon pour mu def ñu waroon defewal combat bu ñu taxawal. Ah. léegi ñu ñu may gars yi ñu dem entraînement. ñu def benn séance de contact bokkuñu bokkuñu benn ñu bokk benn contact non loolu mën naa ko def <laughs> loolu yow may nga ma inspiration sax. billaahi kii la mooy bëri xajul ci moom. Ah. barki Cheikh maa ko dàq bëri téeméeri junni yoon. ñeme nga ma jël si la George Bush nga ñu dem. nañ dem Jackson eh, wala Jackson ya fooy. Ah? bu la neexee nañ dem pare ngeen. barki Seydina Muhammad nañ dem foore. mais pare ngeen pare ngeen. laay wallaay taalaay. waaye nañ dem nga. pare ngeen pare na. <laughs> da dem dewuma. <laughs> boo demee boo ñibbee seen boo demee seen boo ah, ñibbee waa mbiri naa waa mbiri naa dinañ li da ngaa contact ndax dinaa la fël ba nga nooy barki Seydina Mohamed naa la fël ba nga nooy anga mën a a télé kuy télé loolu la ñuy wax kon mënu bëre Seydina Mohamed kii burul xeex maa xeex jàppante doon nii mënu dara léegi Fatma dama lay laaj waaw yow ay sept combats. waaw sept victoire. mais ay ñaar si kaaw la def. duuru mu daal benn kaaw laa am. waaw dégg nga benn kaaw la am lu mu bëri bëri benn kaaw laa fi am. muy bébé Elton. waaw ah. mais ñi des yëpp dama leen a mel ni. pili bëre billaay wallaay wa taalaay. Mhm. man li ma bëre dëgg parce que bëre bu ma. mais mës nga am adversaire bu mel ni kii. kan kii. waaw kii daam ko daam gën a métti foofu. d'accord daam su bi ma koy daan boobu kenn daanu ko boobu la tegle ay ñoom Jacob Baldi ñoom ñëpp daan leen ok ma jàpp ko benn ngoon bëreloo ko ba mu bàyyi ma jàpp ko. dina ko daan Béy Jackson mos nga am adversaire mel ni kii. dama la ne yow maag yow xalal man. xaw ma laamu surtout day dox. Ah, surtout da ngay bëgg di bëri kii dama ma jëlee avance am. barki Seydina Muhammad ñu bëri dañ may woo téléphone naa ma. at at delloo avance avance bi nii ak nii ak nii di wax man leen ñu dem CNG ma gis ko. Hmm. barki Seydina Muhammad man leen jëmm ji su ma ko mënta daan damay teggi sama ngéem. billaa wallaay taala kii su ma ko mën mën naa koo daan damay bàyyi bëre léegi benn affaire dafa am kon boo yeboo combat bi bu jàllee na ngay jël sa lépp suul duwaa nga dem may ko te xam ne dangay bàyyi bu re waaw di sant ñëpp di sant ñëpp di la bëggee waaw di bëggee waa sama adversaire xam nga di ko affaire yi neex na lii la day ñu ñëw neexal ko bu mu neex yàlla mooy man yàlla mooy man dam xam nga yàlla mooy man dam ci kawam après mooy loolu noonu ñu nekkaat ci leneen mm-hmm. waaw di sant waa Kër Mboy Fall bu baax a baax di sant waa Waalo di waa Njaareem xam nga di sant waa waa Ross Béthio waa xam nga waa Joxoor waa Ndimbu xam nga wàllu gépp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaw di sant waa Casamance di sant waa Gàmbi nga xam ni demoon naa fa nekk sama gars yi maa ngi leen siyaar bu baax a baax di hmm. leen bëggee xam nga waa Casamance ñoom Amet Amet lambu seen lambu la waaw waaw waa waa saaral waa saaral waa saaral kaali maa ngi leen di bëgg bu baax waa saaral kaali waaw waa saaral kaali Amet lambu jaay doon seen lambu hmm. la comme waaw waalo timit eh. waaw Thierno Basir lambu ji yaa ko moom làmb sa làmb la comprendre waaw di bëggee tamit kër Mbaye Fall sama gars yi may àndal. Mm-hmm. waaw ku si ni ma àndal nii. muy mm-hmm. sama jàmbar ji di Mame Fallou borom Sengo étoile pause maa koy sant bu baax a baax di ko gërëm. waaw di sant sama booy di sant Kayre xam nga di sant Dégol di di sant sama war a sant lépp. maman maa ngi koy bu baax a baax xam nga di sant ñoom Poba sama booy ndaw ñoom Sita xam nga ñoom Faye ñoom Zës. booy maa leen di sant. di sant xam nga di sant tamit Abdou Karim Sall nekk ñu di ko waxaat ni mu ñëwaat jàpp ci laa bu baax xam nga tey lii ji la ñu waxoon pour ñu ñëw ba sax mais instant nii xam nga. Mm. li ñuy def nii tax moo tax instant yii mënu mu faa dem mais tey la ñu war a recevoir incha allah suba lañ koy def. Mm. waaw ni ko dañ fa ñëw bu ko defee nga jàpp ci làmb bu baax muy ñooy kaar. Mm. xam nga muy ñooy tige. booy def mobilisation bi ñu daan def ñëw dugg esat incha allahu rabbi waaw jàpp paa bi nii ñaawaay bu rëy yi jàpp daan ko jël bu rëy lu amul fenn waaw di sant ñëpp waaw ku lim nag ku lim di sant waa kalandoo yi waa Tool Dias waa Ridis xam waaw di sant Yande Yande Gale maa lay sant bu baax waaw. waa Kambu waa kalandoo waa marché Kër Mboy Fall maa ngi leen sant bu baax waa Bun tamit maa ngi leen woo làmb ji waa Bun ay ñoom am ay ñoom Baba Ardo xam sama Thomas Jackson làmb ji war nga ci kii da laa bëgg a te doo moromu te dinaa ko wax ni nga doo doo moromu quoi comprendre Baba dégg ah, nga papaam da koy clamé papaam. loolu laa dégg papaam papaam laa mujj sa laa. laa mujj la bëri bi fii la toog lu neen lu mu yàqul Jackson amul. lu mu waxul Jackson amul. Eh, xam nga lan lay boole. sorcier Jackson bi papaam ak ak ak nga waa Rii waa Rii 15. waa Rii 15 yow maa ngi leen eh, bëggee. waaw waa Rii 15 yow maa ngi leen di bëggee ngeen jàpp ci laamu ji. Medina Rii 15 xam nga ngeen jàpp ci laamu ji baax. ki daa jur noonu la demee nag sama wax waaw acca looy tàggatoo yow waaw li may tàggatoo xam nga mhm. waaw damay sant rek mhm. waaw ndax fu mhm. a def damay sant waa mbuus naa bu baax te micro bi waaw waaw kam sant waa mbuus naa bu baax xot ngu njaan xama xot jaag mburuwaay xama kam sant a ñop dem nga leen xama nga ngurumbaan tout daal xama waaw sandok cajay mene tout me sante a ñëpp moo ñëpp xama képp andoona rek a kawanden combane me sante am bu baax a baax a baax xama e eh, ka refo kiin andoona ka may fa lay quoi ka may fa lay te jigee jeg njariñ i eh. mais xooya ñëpp nag tagaru kaw kawden combane quoi i fi'an no xama damay sante ñëpp di sante waa Ngunjaan bu baax a baax a baax di sante waa mbuus naa xamaa fi nga xamante ne man sama lépp foofu la quoi xama naa maa leen di sante bu baax a baax surtout jeunesse bi xama ndax man mbër jeunesse bi la quoi maa ngi leen di sant bu baax a baax baax xam nga di sant sama pataro Abdou Kanji Tafa xam nga Kanji promoteur ñoom baylaat xam nga ñoom xaadim xam nga yow defal ndànk rek maa ngi ñëw loolu man maa la koy gérer yow defal ndànk rek. acca mais bàyyi chose bu continuer acca. waaw di sant ñoom ñëpp xam nga ñoom baylaat xam nga ñoom xaadim gaa yëpp ñu ciy jàppe xam nga ñoom si xam nga yëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax sant si ànd ñoom maam Góor Sam gaa yëpp di sant nag xam sama mère bu baax baax mhm. ma toog seen naan lii lay lii lay koy rek sant bu baax baax baax di sant suñu mère bu suñu fiir na Aliou Tine mouvement Teranga xam nga di sant ñëpp di sant waa Casamance nag bu baax a baax. ah yéen a Casamance. di sant waa Casamance bu baax waa Bunkile. maa ngi leen di woo bu a baax ci ñëpp ci combat bi ñu ñëw jàpp ci combat nu mu demee dañ ko tuddee maire boo xam ni suñu dëkk la dëkk. muy mm. Faly Seck grand combat bi moom lañ ko tuddee. ñoo bi xam nga combat bi combat bi ma respecté la. xaaral bi combat bi la. xam nga combat boo xamante ne dama fonk dama ko fonk sama ko quoi. Mm. ndax booy bi nii xam nga dafa rëy lamiñ quoi. waaw ah, muy nii xool leen ko bu baax quoi dañ ko war a defaral big fee. acca lan ngay kii eh, nga ne dama laa ruus mënuma la xool. aja <laughs> loo ci dolli nga ni bi di sant ñëpp di sant sama booy may àndal xam fii de sorte bouse mi booy bi daa am combat mm. xam demee xam di sant sama gaa yëpp ku ci mel ni Aliou Baye Fall xam nga kooku kenn la ci ñun day sont ci ñun barki Sëñ Tuubaa day sont ci mbëri yëpp xam nga ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal waa Mbus Nax production staff Mbus Nax production bi yëpp combat bi am nañ ñu ci taxawee xam nga maa leen di sant bu baax a baax a baax boo nee Mbus Nax production nag bàyyi woo kenn di sant booy may àndal nag ñoom Bas xam nga ñoom Jibi Rek Rek ñoom Mbay xam nga ñoom Njam gaa yëpp ñoom Moussa ñoom Ibra Dione waaw ñoom Ibra xama waaw di sant gaa yëpp di sant koo xamante ne kenn la ci man ku may sotti ay kii xama muy Assane xama maa ngi koy sant bu baax a baax a baax nag di sant sama yaay bu baax kooku kenn la ci man dafa sonn ci man mhm. ak Serigne mhm. moo tax quoi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a may ko gudd gudd fan ak wér gu yaram sant sama pap pap bu baax a baax sama père maa ngi mhm. koy sant di ko wócc combat bi waaw moo muy loolu daal di sant sama rak yëpp di sant ñëpp di sant mbuus naax production bi waa mbuus naax ngunjaan ñëpp bàyyi ma kenn di sant kanji kanji yëpp di sant waa Daaru Rahman bu baax a baax a baax aw ma seen fay Fally Seck laa wax Fally Seck yow lañ tuddee grand combat sa doomu dëkk di ciy bëree comprendre nga ñu ñoo bokk benn dëkk muy Ross Béthio fa laa juddoo fa nga juddoo dama bëgg laamu ji nag nga ñëw jàpp ji mooy ñu ay kaar moo ñëw ay ticket comprendre nga Ross Béthio dama bëgg ñaari kaar jóge fa ñu ñëw jàpp ci làmb ji ñu bëree jàpp daan sa waay ji dem ñu bi di sandaat nag sama yaay bu baax nag mm. di sant sama yaay bu baax di sandaat sama papa wax dëgg yàlla ñu ngi sonn ci man guddeeg bëccëg waaw ñu ngi sonn ci man guddeeg bëccëg mer mer aw ma sa fay. comprendre nga waaw waaw. yàlla na la di am ki may woo ci combat bi nag di am ki may woo ci bi muy monsieur le maire Mbaye Dione Ngoundiane xam nga ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax nag mu ñëw jàpp ci combat bi jàppale jeunesse bi xam nga moom na jàppale mbëru Ngoundiane yi waaw na ñëw jàppale mbëru Ngoundiane yi gars yi soxla nañ ko trop na ñëw jàpp ci affaire yi te affaire yi des fois day métti ci booy yi man te waxuma pour man man moom xam yàlla dimbale na ma quoi man hmm. am nañ ne sama ginnaaw ñoom kanji kanji kanji yëpp sama patorab du kanji gars yi waaye mbay jon ni dañ lay woo nga ñëw jàppale jeunesse bi mbëri nguñaan yi dañ a war a jàppale bu baax baax di leen may xaalis di leen ay billets xam nga lamb ji lamb ji dafa métti te ñun yow la ñu am yaay maire nguñaan xam nga yaay suñu maire ñun ñëpp kon affaire yi dañ cee war a jàpp bu baax a baax waroo toog seetaan affaire yooyu noonu tey boo xewlee boo wootee boo wootiwul gaa ñëw taxaw xam kon ni ngaa war a ñëw jàppale jeunesse bi jàppale mbëri nguñaan yi gaay soxla nañ la de barki Serigne Saliou amaan mbégte contentement pour yéen euh, Georges Bouss defal ni comme que dama ko rus amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu dalaloon ki nga xamante moom mooy bébé Jackson bekki di kër Mbaye Fall ak ki nga xamante ne moom mooy Georges Bouss bu bare joon kon ni ko waxee rek à sànq grand combat bi Papa Boy Djiné la ak ki nga xamante ne moom mooy Nandi Fall am na yeneen combat yoo xam te ne ñu dañ cee toftalu incha allah ñun ñëpp dañ leen dalal ci plateau bi di nuyuwaat ak bu baax a baax Kandji production borom e TDR ak ki nga xam te ne moom mooy moor Mbaye ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di nuyu équipe Sam production yëpp Sam Mbaye Fall di ko nuyuwaat bu baax a baax ne ko wax dëgg yàlla sa journée bi moom rien a dire journée bi neex na di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu bisimilahi rahmaani rahim ñu àgg lépp ci alhamdulilahi rabbil alamin kenn bañ manqué waaw lépp loo xam te ne daal taxoo ñu aj combat yi bi bu mu ci bokk combat yëpp réussir ci barke yonent bi euh, euh, nu mu tudd Tafa bi suma xarit maa ngi lay bu wér a wér mbëru mbëru Kanji mbëru Mor Mbaye di jox gaay yëpp ak daje prochainement incha allah bëgg nañ ci ñëpp mais MD ñu ngi koy ziaraat bu wér a wér bàyyi léppam rien que pour jàppale ñu ñu ngi lay ziar di la wax yàlla rek yàlla yàlla yàlla na yàlla bàyyi suñu kanam yàlla yàlla. yoon bàyyi doxee xam nga damaa dégg olof merci beaucoup daal lañ lay wax merci beaucoup jërëjëf. sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. ci si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat bi pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi bi xamul ne loo ma yab ma ba jël ma loolu it na dëggal boppam rek papa mi ngi a bëgg foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allahu rabbi te làmb ju dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëre man ak She's real